ci jàmm moo taxoon ñu jox gone yii ñuy tagg yonent bi am na kilifa bu séenu muy son excellence alxaaji Omar Gueye di ko nuyu bu baax di ko ziyaar di ko wàcce wàcce waay ñu ne xale yi ngeen bëgg te sant mu as waaye lu jiitu loolu maam Ousmane Sy mu ngay aale Sy monsieur Seydi Hadji Malick foofu lay yem bu gàtt ndax digganteem ak Cheikh Seydi Hadji Malick kenn rek dafa tax muy woy juróom bi ko jur muy Baye Aali Sy mu tudd ci nag ñu yëkkati ko teg ko ci loxo si Babacar Abdoul Aziz bàyyi mag ko jox alax jafar bin Sy Malick mu jàngal ko yar ko wóolu ko nag xam nga suñu war a teew jóg kii yabal ko am na fu mu ko mu ñëw ànd ak forte délégation ñëw teewal mun na ko teewal ndax koo xam ne bu mbooloo mën a jogoo te Tiwaawan ñu la doxal ko julli te suñu Seex Seydi Hadji Malick kon noonu lañ laa yabal feneen kon mën nañ laa yebal pour nga teg premier père te ko yebal assisté naa ba tey moom mii ñu yebal ko dalam xam-xamam ak yaram ak mën a jàngale li Hadj Malick Gueye mii di def fii di jàngale noonu lay def te zone sox si fi nee bëccëg wala yoor yoor ñu gis ñu bëre wër ko di ko laaj ay masal wala di tontu

léegi dañuy jox sëriñ Abdou Aziz Gadiaga mu defal ñu ñaan ñu tàmbali programme bi ñuy ñaan nag képp ko xam ni jox nañ la kàddu nga bàyyi xel kilifa yi yi nekk suñu ginnaaw nga xam ni dañoo am ay yitte yeneen yu ñuy doxi yoo xam ne engagement bi yàgg yu ñu jëloon la te xamul xamuñu ni ñuy def waa daara ji nee na kon moom mi ngi leen di yëgal ni xolam sedd na nee na dingiraay gi nga xamante ni moo fa nekk te xalifa bi sëriñ Basiru Gajaga def ko muy léppam di taawam di léppam musul yëkkati kàddu ci pencum dingiraay moom luñ ko wax rek day jël ñi nga xam ne ñoo di ay rakkam mu wax loo leen tey la musa jël kàddu ci mbooloo nee na mi ngi nuyu imaam ka di nuyu Cerno Ahmadou Ba bu Mbambilor ak mbokk yi fi daje yépp mi ngi leen di nuyu sëriñ bi nee na ñaan gi nag nee na da koy delloo sëriñam nee na bu fi Cheikh Seydil Hadji Tidiane Gajaga nekkoon rek moom Cheikh Oumar Foutiyou Gajaga moom bu fi nekkoon maam Ousmane mii toog sëriñ Tijaan Gajaga du ñaan amin dong lay wax kon nee na sëriñ bi nee na joxewaat na ndigal ni moom mii maam Ousmane na leen ñaanal ñaanalaa ko ñu ànd ñun ñëpp wax amin nee ki ko fi yebal si di sëriñ Babacar Si Abdoul Aziz cër bi mu ko jox nee na moom mii amaat na fi beneen cër bu ko yàlla jox nag nee na kon sëriñ Maam Ousmane nga ñaanal mbooloo mi ñu tàmbali ñu wax amin waaw sëriñ Maam Ousmane nee na ci ndigalul sëriñ Babacar nee na ci la sukkandiku nee joxaat na ndigal nga ñaan sëriñ <laughs> nee na kon bismillah nee na ñu jàng fatiha ñu jàng teg ci salaatul faatihi nee na sëriñ maam Ousmane nga tëj ko nag faatiha salaatul faatihi nañ ko jàng sëriñ maam Ousmane ñu tàmbali waxtaan wi bismillah bismillah ginnaaw bu ñu santee suñu borom julli ci yaramtam bu tedd yi ñu bëgg leen tëttal chronogramme bi dañu ko bëgg a tërale ginnaaw bu ñu jàppale ñaan yi ñuy ñaan kii di chef de village Abdou Aziz mu dalal gan yi bu fekkee mi fi bu ñu paree ñu daal di jox Thierno Amadou Ba Bambilor bu ñu paree ñu daal di jox maam Ousmane mu defal ñu ñaan ginnaaw loolu ñu doog a jox monsieur ministre doog a jox euh, cheikh bi mu daal di def ñaan bi ñu daal di tëj mu fekkee Abdou Aziz mi ngi fi mi ngi ci biir. bisimilah. ñu ngi gërëm nag képp ku fi teew di di jiital si nuyoo bi monsieur le ministre di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko di teg monsieur le préfet du département de Rufisque di si teg le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam di gërëm nag sunu sëriñ ndax am bés bu mel ni sa sëriñ jóge Tiwaawan ñëw ziar la àndax ay mbokkam ñun am nañu mbégte mu rëy tey di maam Ousmane si moo jur El Hadj kon kooku bu nu ko gisee ci sunu sunu organisation sunu xol seddoon na mais gën naa sedd di gërëm it képp ku sant gay di sant it xalifa Bambilor di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal ko ndax jig nda tund wi kon bu fi teewee jaadu na ñu jël turam sant ko bu baax ñaanal ko di gërëm képp ki fi teew di gërëm alaaji Maodo Malick Gaye yal na yàlla yàggal taxawaayam ndax bés bu ñu waajee bés bi amatul soxla fenn amatul soxla si lenn lu dul dox ànd ak Kamisa Diallo ak ñu ko àndal ñépp kon ñun ñi xam ne ñu lañu fekk si fii ba bés bi ndegu suñu loxo defuñu lu dul ñaanal leen sant leen yàlla yàlla defal leen jàmm. mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci seen naam sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla suñu boroom daje bi yàlla bu mu doon suñ mujjug daje di ñaan yàlla suñu boroom lépp lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu te fulandi suñu balance yàlla na ci yàlla baril ay xasanaat am rabbil baatu yàlla bi ñu tudd fii ca salaa salaam wax ni li gën ci li may wax maag yonent yi ma jiitu mooy kalimatu laa ilaaha illallah yàlla nangul ñu ko baat boo xamante ni boo ko tuddee aras yëngu loo ñaan yàlla nangu mbokk yan yàlla nangul ñu waaye balaa ñuy continuer dara ñuy wax ci waxtaan wi mooy sëñ Maodo mooy sàkku ndeem ci kàddoom la ñuy waxee mm-hmm. mooy bala sori kenn ku nekk si ñun na fi nga toog nga ne suñu waajur Baye Gaye yàlla na ko yàlla dolli leer yërëm ko moo ay soxnaam yi nga xamante ni bii jiitu nañu yal na yàlla nangu mbokk yi waaye ñu ngi nuyu ki nga xamante ni bii mooy kilifa yi ñëpp muy président de la république monsieur le ministre boo nemee na ko jotale suñu nuyoo ci moom di am mbégte ci moom ci taxawaay bi mu ñu taxaw ak kan ak soxnaam bi nga xamante ni bii mooy madame Faye sàll première daam na ko jotali suñu cant ci moom ak kan ak ki nga xamante ni bii nag mooy suñu ministre ñàkk ki baax lool mën a teeru gan lool mën a faj soxla lool yitte boo nekk mu nekk ci di xaritu Omar di Omar fi di xaritu Maodo Gueye loolu moom sañ naa ko wax ne xam naa ci dara kon Moustamir yal yàlla yàggal la fi li nga bëgg yaa xam yal na yàlla defal la ndombay tànk yal na yokk amiin rabbil alamin ah monsieur ñu ci teg koo xamante ni bii mooy préfet département ñun de rëcc wuñu lu ñu Macky Sall doon indee Babacar Kane fii préfet ci département bi gis ngeen lii ñu tii muy tànt bi ak lépp loo xam ne am na fi moom monsieur moom la préfet ak sous ak sous-préfet bu Sangalkat bii ñoo ko dox ñoo ko wax ñoo ko lijjanti ñun liñ ci am mooy dem leen jëli rek kon monsieur ministre sa préfet département ak su sous am nañ sant seen moo moo leen sant di leen gërëm waaye lenn tamit tël muy la maire Dieng Diop xam naa mu ngi si yoon yi comme dañoo toll ci yëngatu ne wala dina ñëw incha allah waaye day xaw guddee waaye bu ñëwee ak bu ñëwul yëpp sant war nañ si moom ndax lam diggee woon ak ñun def na ko yàlla yàlla gën koo jàppale kon am na ay préfet yoo xamante ni bii wëllëre daara ji lañu ñu woon ñoom ñëpp jaar nañ fi ci sàngal kam muy mbay saw ak jibi jàllo ku si nekk def nga si xéewal indi ko si daay yu nekk sëñ Maodo ak waaye na ngeen bàyyi xel ci de su bis bii taaroo tey jàmm moo am jàmm jooju nag commandant brigade bu Sangalkam ak capitaine bu jàpp nañ ci yàlla yàlla jàppal leen kon na ngeen xam ne daal sapeur pompier lañ waxoon ak ñoom def nañ ko ci jàppale waaye kon na xam ne service yëpp monsieur le préfet ni nga leen convoqué woon ñu wax suñu soxla ci ñoom na nga xam ne ku ci nekk motal nga service d'hygiène motal na eaux et forêts motal na HP yi santé yi élevage Croix-Rouge Senelec ONAS UCG ñëpp motal na waaye monsieur le ma teg soo baam ci Senelec ñu jar a ñaan lañu loolu boo commencé borom trois jëm mbëtt ñëw bi ci daara ji lu leer ñoo ko leeral Senelec moo toog daara ji lëndëm këriis soxla courant mënu koo am leetar dong la seen mag di jot préparé ñu indil la courant muy daaw jéeg ba daaw ba ren courant baa ngi dox ren lépp loo xamante ni bii war nañ ko yokk yokkaat nañ ko kon monsieur le préfet dañ lay wax dañ lay waxaat mais Senelec moom waxoon naa la ko kala ba ngay def CDD bi dinaa la ko waxaat tey gàcce ngaa la ma jërëjëf service yëpp jërë ngeen jëf waaye Senelec jërë ngeen jëf yan yàlla fay leen mbokk yi sant dafa jaaru ci nit a shukru ni'mal abdu awlaahu ni'ma la azidannakum yi nga doomu aadama yi yàllaa leen moom te yàlla leen bind mu jël wërsëg jox leen ñu jël seen wërsëg compal la jox la sant leen ngir yàlla dolli la boo leen gisee ñu jox la mbokk yi foog ñu sant nag yal yàlla def jàmm waaye sëñ moo nee na mu ngi sant famille Gaye ay magam di ay rakam nee na commencé Cheikh Gaye ba ci gën a tuuti nee na sëñ Maodo Gaye na mën naa waat si yàlla ne dóor sama loxo si téere moom famille ñëpp ko bëgg di góor di jigéen nag di mag ba ci ndaw ñëpp ko bëgg mu ngi sant ñi ko si nekk jël nga sa wërsëg ñoo fekk ci daara ji ne ko maa la jàpp ci bis bi jërë maa jëf kon la suñu waajur dénkoon yaa nga ca kon dañ lay jàppale kon yàlla jàppale mooy mu tontu ne ne leen fii ma toog nii yéen a fi tox na fi ba bi baagee tànnee bàyyi ma de sant lañ ñu jërë gërëm lañ ku ci mel ne Cerno Amadou gaynde diine islaam Cerno Adamu Cerno Amadou koo xamante ni bii amul xaj ak seen xamul murit xamul tijaan xamul xaadir xamul laayan xamul dara li ma xam mooy ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah li la xam kon Thierno Amadou Dieng maa jëf sëñ Maodo sant na la gërëm na la mu ngi lay ñaanal yàlla nee na jiitul ma tepp sa ginnaaw lu ñëw dara ñëw si yow man nga puus mu dal sama kow moo gën mu dal sa kaw Thierno Amadou Dieng maa jëf yaa kilifa jën yi fi nekk népp yàlla yàlla jàppale mbokk yi dafa am loo xam ne faw ñu wax ko gi nga dëkk bii sëñ Maodo dafay nekk ay dëkk wër ko tund jandar gépp ñu ngi fi tey boo commencé golom déen mbët ndóoyeen jagsaaw mbambilóor kañak ñépp ñu ngi fi lu ko waral mooy sëñ Modou Gueye moo am oyofam dëkk ndoog nit ñi dëkkin bu rafet kon bu wootee foo ñu wuyu ko kon ñi ñu tudd ak ñu tuddul ñépp seen Maodo sant na leen gërëm na leen mu ngi ñaan yàlla suñu boroom yàggaay bi yàlla yàgg lool seen diggante yàlla na ko yàlla def mbokk yi waa ñu ji waaw waa Kër ma ñëpp suñ saabu si mu ngi ñaan yàlla suñu boroom ba njar ñëpp yàlla yàlla lu jàmm waaye mbokk yi waaw mbokk yi si Abdoulaye may wax léegi neen mais teraanga bi mu indi mooy li ma wax léegi moom daa musa jàpp musa tayal lu sëñ du musa tabli si daara ji rek fekk na ko ci mooy li ma wax sànq ci monsieur le Omar mooy kii def te bëggul mu siiw yàlla yàlla def jàmm kon mbokk ñu bàyyi xel ci ne bis bii dafa am lu tax Maodo tànn ko muy bisu xadara ngir ñaan réew mi jàmm am fi dëkk bi jàmm am fi ñépp jàmm am fi mu tànn ay kilifa yoo xamante ni bii ay kilifa yu wóolare Baye Gaye la ñu woon ñépp gën àdduna tey sëñ Maodo ne xaaral ma tànn leen ñoom ñépp ñaanal leen yàlla suñu boroom wàccal leen téeméeri kaamil aw fukk ak ñeent ci daara ji moom la def nii tey mu ne bis bi mu jeexa tey ma woon nit ñi ñu xadara wasifa ñaan yàlla suñu borom yàlla jéggalee seen bàkkaar yërëm leen waaye yàlla tabbaleen aljanna mbokk yi yàlla yàlla nangu Seyd Maodo moo def lool ci gox bi képp koo xam ne kilifa nga te faatu nga nekkoon wëlëre Baye Gueye sëñ Maodo tànn na la tudd sa tur ñoo ñëpp tey seen famille ñu ngi fi toog famille nangam famille nangam famille nangam ñëpp a ngi fi toog kon sëñ mbokk sëñ Maodo yàlla yàlla fay la ki génn àdduna yàlla yàlla fay la waaye mbokk yi kàddu yi dañuy bañ mu gudd li diw si ñag bi li diw si cin li xësul si euh, li diw si nag bi xësul si cin li liñ bëgg a wax lépp bari na waaye mbokk yi sëñ Maodo nee na mënumaa jeexal samay kàddu te tudd tudduma ki nga xamante ni bii aka baax ci njaboot aka baax ci kër aka mën a yéen njaboot aka mën a maye ñam aka rafet xol aka tàlli aka mën a xotti yére aka mën a jënd dàll aka mën a jënd mbaxana aka baax ci gan aka baax ci ay goroom aka baax ci yaayam aka baax ci ay tànnam soxna mm, euh, sëñ Maodo daañu laaj yan may ko koy kan yéen yéen a wax ni derrière grand homme y a une grande dame kon soxna Fatou Gadiaga yàlla yàlla fay ko soxna Fatou Gadiaga ñaanu xol ku nekk fi nga toog na nga ne Fatou li mu bëgg yàlla yàlla defal ko mbokk yi kooku la ñu ñaanal ci biir ak ci biti moom la mbokk ñaanal moom la xarit ñaanal moom la mag ñaanal moom la dëkkandoo ñaanal moom la ñëpp ñaanal moom la taale bi jàng alxuraan gisuñu seen dee gisuñu seen bàyyi moom la ñu ñaanal mbokk yi soxna Fatou Gadiaga yàlla ko yàlla defal jàmm ak am sutura ak a baax ak a talli ak rafet xol mbokk yi su jigéen ñëpp meloon ni soxna faatu Fatou Gadiaga ma ne kon adduna rafet na adduna neex na soxna Fatou Gadiaga yàlla bu cat dugg si yow wax li may wax nii xol laa ko waxe yàlla bu ca dugg mbokk yi kàddu yi mënta gudd ginnaaw bi moo doon sant ñëpp sant ay mbokkam sant ay wajuram waaye sant na dëkkandoo bi yëpp jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay leen kontaan na yàlla kontaan mu ngi ñaan yàlla suñu boroom ba déwén ak jàmm insalaam sooba ñu def ko ni ko def waa kon rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa yi ñu ngi jégu ci kàdd guddi yi